Ah, di nuyu sunu gan yi fi teew di leen euh, euh, tatagal di leen félicité ci turu président de la république ma fi teewal tey muy ndaje bu am solo ndaje bu ko yàgg yitteel ndaje boo xam ni yàgg na ko topp ñu ngi fàttaliku en 2013 ci côte général des impôts la njëkk a wax na am ay dispositions yu ñu ciy dugal pour wane ni finance islamique lu am solo la boobu doole finance islamique tollu woon fii ci la ñuy njëkk a reconnaître principe u zakat ba nga xam ni boo joxee zakat mën nga ko wàññi ci bénéfice bi ngay fay loolu dangay nangu li nga doon ndax li ëpp ci réew mi ay jullit lañu mais dafa toll si jamono joo xam ni adduna bi yëpp même réew yi nga xam ni du ñu ay réewu jullit finance islamique fekk na mu dugg fa boobu Londres place financière bu mag la finance islamique dugg na fa bu baax a baax a baax a baax ci la autorisé ñu def fi waqf may nuyu ñi fi teewal wax bi fàttali ngeen ko fi léegi boobu docteur Mohamed Ali moo nekkoon. jiitu BID mu jàpp ci bu baax a baax dimbali ci Sénégal bu président de la République ci jamono jooju yu dugal loi boo xam ne dina autoriser wax ci la Sénégal njëkk a def sukuk 2014 2016 réewu Afrique yu bari topp ci loolu yëpp pour wax ni finance islamique bunt la yoon la te mënatuñoo def koom-koom te boolewuñu ko ci. kon may rafetlu matuwaay yi nga xam ni waa banque centrale jël nañ ko pour que finance islamique mën a dugg ci sunu législation su may rafetlu liggéeyu banque centrale damay rafetlu liggéeyu ñi nga xam ni dañ ko gëm sëriñ Lamine Mbacké nekk ci créer institution di ci xeex guddeeg bëccëg ba léegi bu ñuy wax finance islamique boo ko indee ci biir Sénégal da nga ciy gis jëmm kon Sénégal ci turu président mi lay dokkeel bu baax a baax di la féliciter di la encourager dëgg la réew yëpp war nañu uti alal dëgg la Sénégal dina ko uti mais xam naa ni liggéey bi ngeen di def rafet na rafetaay boo xamante ni taar bi mu am. war na tax Sénégal tey bu taxawee di ci wuti yàlla mun na ko ci ubbi li bunt ma lay félicité ci turu président moom moo fi waroon a teew tey loolu moo doon yéeneem waaye mu ne ma naa fi ñëw teewal ko fi teewal fii gouvernement bi yëpp pour won la ni lii ngay def gis na ko yëg na ko mi ngi la ciy jàppale sant na gouvernement bi yëpp na la ciy jàppale muy nuyu waa BID yi fi toog di ay partenaires privilégiés wu Sénégal di nuyu banque bi nga xam ni BID moo ko ubbi Sénégal muy banque islamique de banque islamique du Sénégal di aussi un partenaire particulier du gouvernement du Sénégal am na loo xam ne mën nañ cee wax ndax dañ ko dund fekkee nañ ko li may wax directeur national banque centrale xam na ko kon acteurs yi fi toog nañu xam ni gouvernement bi. taxaw na ci jàppale leen gouvernement bi dina ànd ak yéen ndax li ngeen di def balaa muy doon seen njariñ njariñu Sénégal la ba pare ma leen di sant di leen gërëm wasalaam. je pense que euh, délégation bi euh, ñi fi teew ñëpp euh, di ci jiital Serigne Mame Thierno sama wayjur sama wasila mi nga xam ne bi may tàmbali liggéey bi ci moom laa ko jaar moom laa ko wax mu yëgal ko sëñ Mountakha sëñ Bassirou Mbacké ak waa kër sëñ Mame Thierno teewal ko fi. jaare ko ci sëriñ Bassirou Anta Niang di xalifa Darou Moussi nga xam ne at mu jot sëñ Mahmoudan ak euh, mi ngi fi ak sëñ Abdou Aziz euh, bu sëñ Modaw Balla euh, délégation bu mag ak sëñ Xabaan mu sëñ Murtada ak ak sëñ Cheikh Balla le grand agriculteur bu sëñ Moustapha Bassirou loolu lépp day wane ne nit lu mu jàpp ay mbokkam jàpp ci te suñu mbokk mooy mooy kilifa diine yi loolu itam monsieur le premier ministre yaakaar naa lu am solo la ndax finance islamique balay mën a dox bu ñëwee ci benn institution financière islamique mu nekk banque mu nekk assurance mu nekk marché des capitaux il faut que ñu dégg charia ñoo xam ne bu ñuy monter transaction bi ñu mën a xam ba am dégg na dëppoo nag charia wala dëppoo nag charia yaakaar naa directeur national la banque centrale monsieur Aminou loo xam ne bu baax li may wax moom la ñu tuddee charia board ci anglais charia yooyu nag mënul ñàkk charia board yooyu nag monsieur le premier ministre yaakaar naa ñi fi teew ci këri diine yi suñu këri diine yi nekk Sénégal kenn rawu leen ci njàngum diine ñu wax ne Sénégal ak Mauritanie depuis lu jege junni at xam-xam bi am ci diine boo demoon ci réew yi àdduna yu bari amuñu ko kon nag vivier la boo xam ne gannaaw am nañ xam-xamu diine fiq muamalat boo am doolee mën nañ leen a defal ay formation en finance islamique monsieur Abdallah Sow mi ngi fi maa ngi ko interpellé que ak ay AIF ñu jéem a lever ay financement yoo xam ne euh, ñu jóge ci kër yi diine lañ formé pour ñu mën a am une euh, euh, formation finance islamique te banque islamique développement wane na pas-pasam pour mën a financer loolu kon nag monsieur mi premier ministre ci ci ci loolu itam ñu ñu ngi la koy li di leeral ñëpp rek ne leen finance islamique li ñuy jiitu cant mooy président la république Macky Sall tax na taxawaay bu infatigable ci finance islamique importance bu AIF am ak Lamine Mbacké am ko lu ci bari bari président moo nekk ci ginnaaw te itam. jot nañu waxtaan mais am na passe-passe pour industrie financière islamique taxaw je pense que madame euh, Fatoumata Tall est là la coordonnatrice dañu waxtaan ba ci biir sax ak de Promise qui est notre partenaire de premier plan mu ne ma président ma demandé de vous rapprocher de vous pour développer ça kon nag euh, loolu itam mën nañu ko wax ci premier ministre ndax bi mu nekkee ministre des finances lañ def sukuk bi ci la gagné prix de la finance islamique donc volonté politique gu euh, pour finance islamique taxaw mi ngi fii li ci des mooy remercier suñu partenaires yi banque islamique Sénégal je pense que yokk nañ capital bi bëgg nañ koo taxawalaat ak suñu partenaire étranger xëy na li may tëjee mooy suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jógee Arabie Saoudite ak ci pays golfe yi ak yeneen pays uh, we have some Chinese friends here also I don't know if there's translation Emily on a aussi là il a beaucoup de sociétés chinoises qui sont là pour chercher des opportunités de financement islamique euh, pour euh, euh, pour le pays alors je vais pas abuser du temps Euh, maa ngi jégalu lu ma fàtte wax ba ñu jégal ma ku baax mais euh, monsieur le premier ministre honorables invités je vous réitère la bienvenue au King fat à tous les participants et euh, réaffirme la disponibilité de l'AIF et de son équipe à faciliter votre participation aux échanges pendant ces deux jours. L'AIF, maintenant, c'est une petite équipe. Je pense à M. Bambawele, qui est un ancien diplomate de, l'ambassade de Malaisie. On a d'étroites relations avec la Malaisie. Je pense à Aïssatou qui est infatigable, je pense à toute l'équipe euh, qui fait un travail extraordinaire. cette année, donc, on a, après la cérémonie d'ouverture, on a eu ce matin un atelier sur euh, le financement du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Alors on a travaillé avec euh, un expert de l'AIF e qui s'appelle M. Moudibo qui a abattu un travail extraordinaire <laughs> dans le secteur. On est vraiment très impressionnés. On a un deuxième atelier demain matin sur la fintech islamique avec nos amis de ITS et nos amis de la Malaisie. Vous savez que la fintech islamique est en croissance exponentielle. On a aussi beaucoup de partenaires locaux qui sont là. Et aussi, il y aura un troisième atelier qui va être présidé par le ministre Ali Gounia, Inch'Allah, demain sur la stratégie de souveraineté alimentaire. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite euh, un très bon